salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 Boulaye Dia l'international sénégalais daal dinay marqué tey jii juróomeeli balam ci saison bile gannaaw bi nga xam ne tey jii ñoom dañu doon joué ñoom waa Salernitana seen diggante ak Lazio mu nekk jogante goo xam ne kii di Boulaye Dia sax nekkul woon titulaire de dafa dugg comme remplaçant waaye daal bi mu duggee douze minutes képp la def ci terrain bi daal di marqué bit boobu nga xam ne mooy ñetteelu bit bi nga xam ne moo leen may ndam tey jii 3 buts à 1 seen digganteeg ñi di waa Lazio kon mën nañu wax ne fi mu ne nii kii di Boulaye Dia bi ñu dooree saison bi ak léegi daal dinay euh, marqué li nga xamante ne mooy cinq buts ak euh, amal li nga xamante ne mooy deux passes décisives ci onze matchs yi nga xamante ni joué na ko te li ëpp ci jongante yi wala bokk bëri na ci yoo xamante ni titulairul comme tey ak match bi la passé nga xam ne dafay ñëw comme remplaçant tey jii ki nga xamante ni mooy Pape Ousmane Sakho moom itam dafa dal di amal ab doublé voilà Salah ak clubam boobu di Simba SC nekk foofu la ci Tanzanie ñoom nag ñoo daal di am victoire bu yaatu juróomi bal ci dara ki nga xam moy mooy Pape Ousmane Sakho moo dugal ñaari bal yi ci jongante ko comme ni leen ko waxee mu nekk xale boo xam ne nag gisoon nañu daaw mu doon def saison bu rëy ak club boobule voilà ñu bari jàpp nañu ne sax moom dal dinay am li nga xamante ni mooy mérite ngir ñu dal koy woo ci li nga xam ne sélection nationale bi waaye nag mu dugalan ti nga xamante ne bit bi gën a rëy xam ngeen ko ni ki daaw voilà ci li nga xamante ne Afrique yépp moom Pape Ousmane Sakho moo dugalan bit bi gën a rëy ci saison daaw bi ñuy xaar ren mu dal def lu rëy te loolu sax amaana dina ko war a mën a ubbil bunt yu ngir mu war a mën a ñëw ci sélection nationale wala sax mu génn dem feneen foo xam ne xëy na mooy gën a fes comme Europe gannaaw loolu day ñëw ci li nga xamante mooy Ligue 1 bi nga xamante ne dal dinañu complète lu aju ci li nga xamante mooy troisième journée bi Guédiawaye Football Club dafa daal di match seen diggante ak zéro partout Jaraaf moom dafa dalal CNEPS daal di koy door 1-0 AS Pikine di door Jàmbaar 1 but FC dafa dalal Génération Foot dal di koy door 1 moom dafa door ñii di Dakar Sacré-Cœur 5 victoire bu yaatu la waaye ñii di bi Tëngéej FC gannaaw victoire bi mu am ci kaw Génération Foot may na ko mu gën a maam jëkkal taxawaayam ca bopp classement ba fi ne nii moom 9 la daal am voilà ci 3 journées yi nga xam ne joué na victoire Casa Sport moo nekk ci ñaareelu place bi am 7 points AS Pikine ci li nga mooy ñetteelu place bi 6 Stade de moo koy seen noonu ak waa Linguère ci quatrième ak cinquième place bi bu ñu jógee foofu ñu dem xam ne am na ko ci saison ren bile 31 points la dal di am nekk ci bopp classement ba ñi nga xam ñoo ne Man ñoo topp ci seen kaw ak 29 points Tottenham Hotspur ñoo nekk ci ñetteelu place bi ñoom 26 points la ñu am Newcastle United moo koy seen ak Manchester United ci quatrième ak cinquième place bi. buñ jógee foofu ñu dem ci la liga bi nga xamante ne tey jii itam doon nañu amal loo ñeel it deuxième deuxième journée bi euh, douzième journée voilà osasuna tey jii dafa dal di dalal real Sociedad euh, real valladolid dal di koy dóor 2 0 waaye real madrid moom dafa match nul seen diggante girona 1 bi partout voilà mu nekkoon match boo xam ne kat li nga xamante ne mooy coow na ca ndax ñoom waa real nee nañu am victoire euh, bit bi nga xam ne di rodrigo dëgal na ko bi la arbitre bi nag daf ko dal di dis ki nga xamante ni nag mooy kii girona ci conférence de presse bi mu doon def après match yi moom sax dal dinay confirmer ne bii la waaye nag comme arbitre mooy joxe li nga xamante mooy dogal yi moom nee bii dafa ko dal di ko dóor 1 ci match boobu ki nga xam mooy Nicolas Jackson dafa ñëw comme remplaçant voilà titulaire ñu fàttali ne ñoom dañoo changé coach coach bi nag bëri na poste yu bëri yoo xam ne dafa dal di changé doon titulaire changement yu bëree bëri la gis ci ñaari match yi nga xamante mu leen koy tàggat moom kii a dañoo am défaite tey Real Sociedad dafa daanu ci Real Betis bu kii di Youssouf Sabaly 2 la woon ci match boobu voilà moom jeune li nga xamante mooy jogante gépp comme moom dafa jógee ci blessure loolu muy wane rek mooy kii di Youssouf Sabaly ngi ànd ak jàmm yaramam loolu nag yaakaar naa ne sant yàlla lay doon pour li nga xamante ni mooy suñu sélection bi nga xam ne du yàgg dara liste bi dina dal di génn bu ñu xoolee nag li nga xamante ne mooy classement bi foofu la nga xamante ni mooy ca La bi

lu ñeel douzième journée bi Empoli dafa dal di daanu ci kanamu Atalanta 2-0 Cremonese dafa match nul seen digganteeg ñii di partout ñii di ñoom dañoo daanu Fiorentina moo leen fekk dal di leen ñaari bal ci benn Lazio moom di Salernitana bu euh, Boulaye moo ko fekk dal koy dóor 3 buts à 1 Torino bu Demba Seck dafa dal di dóor ñii di waa AC Milan 2 ñëw léegi ci classement bi kon AC Milan dañu A jàng neex trop ci ki nga xamante mooy Mor Touré bi supporté ñii di waa AC Milan kon bu ñu xoolee li nga xamante mooy classement bi foofu la Italie Napoli mooy wéy di nekk ci bopp classement bi koy diggante premier ak deuxième bi yofi ni moo fa dox Atalanta 27 la am nekk ci deuxième bi AC Milan gannaaw défaite bi mu am moo waroon nekk ci premier bi bu gagné woon waaye dafa daanu kon 26 la am topp ci gannaaw ñi di waa Atalanta Lazio 24 cinquième place bi moom ak Lazio ñoo tolloo ay poñ ku nekk 24 points nga daal di am bu ñu jógee foofu la ci Italie dañuy dem ca Bundesliga bi foofu nag tey ji ñetti match képp fa xewoon Union Berlin moom dafay wéy di sànni karawaas dafa dóor tey ji Mönchengladbach 2 buts à 1 Schalke 04 dafa daanu encore Fribourg moo ko fekk daal di koy 2-0 ñii di Cologne ñoom dañoo match la seen diggante rek Hoffenheim 1 bi partout bu ñu xoolee nag li nga xamante ne mooy classement bi foofu nga xamante kat mooy ca Bundesliga bi Union Berlin mooy wéy di nekk ci bopp classement bi gannaaw victoire bi nga xam ne am na ko waaye nag ñoom ak Bayern na fi ne nii dañoo sësant rëkk Bayern na fi ne nii góorgóorlu na ba benn poñ cëpp a dox digganteem ak ñii di waa Union Berlin buy fakkastalu rek mu dal ci kawam voilà kon euh, Union Berlin 26 points Bayern Munich 25 ci troisième place bi quatrième place bi Dortmund moo fa nekk 22 points kon foofu def ndax benn poñ benn poñ presque la ñetti waa Fribourg kon moom ci quatrième position bi la nekk jamono yile bu ñu jógee foofu ñu dem fa li nga xam ne mooy ci Ligue 1 foofu nag mën nañu wax ne li ëpp ci match yi tey jii la ñu ko doon football Auxerre bu Mbaye Niang dafa daal di dóor ñi waa Ajaccio benn bal ci dara Mbaye Niang nag dafa dal di génn ci match boobu ndax dafa am carton rouge boobu nag mooy ñaareeli carton rouge boo xam ne am na ko ci saison bi ren bi leen ndax match bi mu njëkk a joué ci saison bi dañ ko rouge woon bii mooy ñaareel bi yoon kon mu koy daal di jël AS Monaco bu Krépin Diatta dañoo dóor Angers bu Sada Thioub ak moo leen daal di dóor 2-0 Nantes dafa match nul seen diggante Clermont bu Arial un bi partout stade brestois bu ki nga xamante ne mooy Noah Fadiga dañoo match nul seen diggante ak stade Reims bu ki nga xamante ne mooy Dion Lopy zéro partout la jogante googu jeexee stade Rennes bu Alfred Gomis dafa daal di dóor 3-0 Montpellier bu Bingourou Kamara Lorient moom Nice moo ko fekk daal di koy dóor 2 buts à 1 waaye Olympique de Marseille Olympique Lyonnais dafa dalal ñii di waa Lille daal di koy dóor 1-0 ñu fàttali leen nag ñoom xawoon nañu fiy dugg ay jafe-jafe amoon nañ fiy guddi ba far dàq seen entraîneur ba Laurent Blanc moo leen di tàggat bi Olympique Lyonnais kon tey ji dañoo daal am ndam buñu xone nak li nga xamanteni moy classement Ligue 1 bi Paris Saint-Germain booy way di nek ci bop classement bi ak 35 points Lens mo nek ci ñaareelu place bi 30 points la daldi am René moom fimni ne mu ngi ci ñetteelu place bi ak 27 points and ak Lorient mom itam amna 27 points ci e place bi Olympique de Marseille ci e position la nek jamono bi ak 24 points. voilà gars yi loolu moo fi moy li fi gënoon fess ci kayiti xibaar continuer leen ci suivre Sport 221 the best sport news channel